متي خادا متي ركجو مليكا أيها ملكي واو بقول وصدال تتصل خواي أيها ملكي بجدو ميرا تتصل خواي ay Moussa Ndoye champion laa yow mi noote anaami loola iyo bati xaada bati rakijo bi la ñika ayaa ma dike loosa ku bëgg loosa sa loxo ci kawaay ayaa ma dike mi noote anaami loola ayaa terakijo miridinka aya madike mindoke analola aya madike mindoke anamilola aya malike ku bëgg loo sa sa loxo ci kawaay aya malike ali ñu bëgg loo so ay mi ndake ana mi nola aya malike wa ali ñu bëgg loo so ku bëgg loo so solo xati ka waay aya malike mi ndake ana mi nola bate xaada bate rakijo mi lilka Aya, Malike. Minoke, Anoriola. Aya, Malike. Kubaguloso, Tatu Salokawai. Aya, Malike. Minoke, Anoriola. Aya, Musa doy tàccu sama xawaay ana Musa doomi Yàlla sama waay la yaa werike wow wow ay indoke ala la yaa malike mindoke ana mindola bati xaada bati rakido bi majlika yaa malike nga ñëw mais loo sa daa am ñaari doomu ndeyam yu ñëw tey ñuy ay seex dama bëgg ku sopp Serigne Babacar nga tàccul ma ñaari seex yi ah gari yoo ñoo fee gari na ba jobali seex seex ku wax loolu yàlla nga ne leen loo soos la taa nañu lor ko daa yàlla di bëggal tàccu ne lii tàccu ne lii Moussa ngi nii tàccu ne lii Moussa ngi nii waaw waaw kaay leen loo soo loo soo loo ku ci wax loolu yàlla nga fekkee nawet loo yéen ñëpp loo soo loo soo rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi sant a jul sonant bi euh, ñi ngi ñaanal sunu waajur bu ci góor yàlla na yàlla yeesal yërmandeem di ñaanal suma suma sëriñ sëriñ Babacar Sy yàlla yokk ay leeram di ñaanal waa rax yëpp di ñaanal ba Abdoulaye Diène yàlla na yàlla yokk ay leeram tam si barkeem asalaamaaleykum waaye rax maa ngi nuyu àdduna yëpp Moussa naka nga préparé tey combat Loso ak kii kii di gam waaw Loso euh, suma rakk la suma xarit la ma doom day la di ñaan yàlla yàlla may ko ndam préparé nañ combat am ni ñu ko mën a préparé combat bi am naa si yaakaar te yàlla bu yàlla te suñu yaakaar suma xol sedd na si baax a baax a baax suma xol sedd na parce que euh, am na état am na lépp looy xalaat baax na bi waaw. waaw xel mi lan nga xam ci adversaire bi muy bëreel waaw adversaire yu bëreel man miinu ma ko miinu ma ko pour cent mais dégg naa bërikat la mais man Losso suma rakk xam naa ni bërikat la waaw waaw lan nga muy bëri si bu mag muy 4 avril fête indépendance lan nga koy ñaax bés bu waaw avril avril surtout ngay bëri jour xam indépendance kooku indépendance mooy sunu indépendance lañu war a jël si waaye Yaraax avril bi sunu indépendance ñu jël si làmb ji ñoo ko jël incha allah rabbi waaw. loo koy sas. waaw li ma koy sas mooy na xam ni topp si ginnaawam ak ñi ko jàppale ak ñi doon rey bopp seen bopp ndax si ndax moom am na ñaa xam ni tey jii euh, bëgguñu nañ suraay loolu mais na jàppale ñëpp bëgg nañu. te xam ni man li ma koy gën a ñaax mooy na na fonk adversaire am respecté adversaire am comme d'habitude te xam ni lu mu gàtt gàtt gàtt yàlla dina ko may ndam am naa si yaakaar baax waaw am naa si yaakaar. ginnaaw loolu Moussa ci loo nekk. waaw maa ngi si jàmm xawoon naa denc tuuti mais loo soo moom a génnee waaw moom a génnee mais nar ñu moon teel a gis mais loo moom a génnee parce que daf ma ko liggéeyal moo tax su doon suba laay bëri sax damay waaw. non def ak sa waajay sa combat diggante kii rek waaw maa ngi di préparer di ñaan yàlla yàlla may ma ndam ren ala cadar mooy no, ala cadar waaw ala cadar rek waaw waaw non préparé laa ko préparé préparé parce que fii sant yàlla préparé sant yàlla bu baax waaw di gërëm ah, di passage di gërëm euh, Père di gërëm Aliou di gërëm Souleymane Diaw Mamadou Sow euh, boo yarax ñëpp maa ngi sant leen gërëm samay rakk yi mbëri nekk fi yeb ma ngi sant len gërëm jigil fambe ak ñëpp bayuma kenn ñi ngi ñep di gërëm fan ci club Moussa ndoy fan si club Loso na ñep ñew japp ci affaire yi loolu am solo di waxaat tamit waaye rax dañoo def lu garaaw ñëpp dañoo mobilisé wu ñëw jàppat igir yarax igir yarax lo la xat am na igir yarax gi di toll nii lépp am na igir yarax lepp am na fi waaw lepp am na fi waaw sant nañu yàlla bax di di ali Adja tamit vraiment mo habillé moo mo solal def li ci man diko ñaanal yalla bu digam gëna a fulu a am ay bigit yu bare bare bare muy marque bi tay sante yalla te lépp yarax la mo tax ma ñeme xoxa fi kon tamit suñu xel day dal dal waaw di ñaan yalla yalla yalla guddal fani yalla yalla may losoo ndam yalla yalla may dibo ndam yalla yalla may musa ndoy ndam yalla yalla may khadim ndam tamit di ñaan ñëpp kat ko mbay ñoom yalla ci yalla def ndam yëpp yëpp sante yalla bu baax baax di ñaanal yalla boy nar yalla ko yalla may combat boy job yalla ko yalla may combat

mbokk yi tey ñu ngi yaraax fekk si philosophe war a bëre ak maa ngi lay fay di la nuyu sa teewaay ak TV en TV bi di leen bëggee yéen ñëpp yéen ngi teew ñëpp waaw waa dëkk bi yëpp di wax daal tey dama kontaan dëkk bi quoi ndax gis naa niñ ma taxaw dëkk bi yëpp génn nañ ñëw taxaw seen doom ñu waajal nag la kat incha ngay bëri jour 4 avril jour indépendance fête bu nga xam ne mooy suñu fête indépendance fête nationale nga nekk xale war ci bëri ciy tëgg combat boobu loolu lam nga ci yëg ak lu muy def sew jour indépendance nga koy bëri. waaw loolu moom dama ciy kontaan bu baax a baax a baax a baax parce que bëri fête moom dafa neex quoi mais ñun c'est pas la première fois ñuy bëri avec moi tamit lu ma si gën a neex mooy dama ciy ànd ak sumay mag su mel ni Moussa Ndoye booy naag Pape Diop ak waa équipe yëpp ñoom caat quoi. di wax ne daal incha allah liggéey naa loo xamante ne ci combat bi mosuma ko liggéey ci combat xam nga lenn kese laa leen deseel mooy jëli ko indi ko incha allah. jëli ko indi ko ndax jëli ko indi ko dina yomb comme ni nga wax parce que dab daan ngay bëreel de. waaw xam naa ne moom laay bëgg dab daan lay bëgg mais man ak moom bokkuñu quoi. lan moo leen wutale. li ñu wutale mooy ne maa gën nekk xale te xam naa ne li ma daj ci ay coono moom daj ko. loolu nga yaakaar. non loolu am sax te incha allah bu ñu duggee ci bu ñu ko maag moom boo ñu xoolee yaa ngi fa di nga xam li ma la wax te incha allah su bëree ma daan ko su xeexee ma duma ko. incha allah ñaata combat nga def. maa ngi si ay onze combat ñaata victoire. maa ngi si huit victoire max neen. Hmm. waaw te ñoo daan. maam Ba la numéro deux ak ñoom rek la waaw. lan moo tax nga ne su xeexee nga duma ko su bëree nga daan ko foo teg loolu. ñaar yëpp maa ko ci parce que lamb ji yàgg daaw lañ ko waroon bëri huit juillet ñu dem ba mu des deux jours moom mu dafa beeree xaw ma lan moo ko mbëkk xam nga di ko yàlla tamit loolu moo waxoon yàlla na nekk yàlla na am jàmm ak salaam ba bis bi parce que dafa yàgg te yow xam nga làmb yi ni mu demee bu yàqoo booy ñëwaat yaay waajal sa bopp ñëw xam nga li may wax daal mooy ne li may wax man fi ma ko teg xam naa ko incha allah liggéey naa loo xamante ne du pour moom grand combat bi sax xooluma leen ci kanam lay xool ci kanam ngay xool waaw xooloo ci kanam ngay xool mais balaa grand combat bi nga amal affaire tey bu ñu la laajoon actuellement nii combat bi ay fan yu néew si des ban looy yëg sa yaram nii est-ce que pare nga physiquement ak ci côté mental bi tamit est-ce nekk nii pare nga bu baax macha allah pare naa ci côté yëpp combat bi daal aw ma ci benn lu may xalaat aw ma ci lenn lu may tiit côté yëpp physique doole xeex lépp pare naa ci bu doon tey tey nii nii nii sax pare naa pour dem parce que ñi may kontaanal ñoo ko doole fuuf. tolloo wu ak Moussa Ndoye tolloo wul ak Boy Niang tolloo wul ak ñoom Dibo ñoom Pape Diop xam nga ñoom Ablaye xam nga gars yi quoi xam nga. tolloo see kenn doole. mois ngay bëre dégg nañ ne sa tête de film ci lay bëre yow yaay ubbi baal bi loolu tamit est-ce que du doon pression si yow. non baal bi sax tijji nañ ko ba pare parce que caatu caatu yaraax bëri na tijji ko man damay ñëw yàqali diboo ñëw leeral Moussa Ndoye ñëw saayi ko ñoom booy naa gars gi naa ñëpp ñëw quoi ak xaadim waa xaadim fay mu ngi war a bëgg tamit quoi waaw ñun ñëpp xaadim fay am na combat man Moussa Ndoye diboo di ñaan tam ñeneen ñi si des ñëpp am combat quoi kon daal su ma la déggee mois d'avril bi seen mois d'avril nga ko bëgg a def mois d'avril daal ñoo ko moom incha allah ay ndam lañ koy bëree ba saison bi ni muy jeexee inshallah bu neexé yalla ak bi leneen dal moy né dafa am ño xamné dañ dañu may jàppale ci combat bu baax a baax a xam nga ku si melni Serigne Ndiour Mbës yo xam nga sa doomu ndey la Serigne Ndiour Italie dafa ma jappalé bu baax a baax avant combat après combat yëpp dafa may taxaw xam nga ak tamit monsieur le maire Babacar Meng da sé japp bu baax a baax tay baax yabal na fi délégation dalé wad mention spéciale aw ma fayam wad lepp lu ñu nekk dalé wad da ci taxaw xam nga ak suñu yaay yi su koñ bi yëpp xam nga ñoom maire Aminta Laax xam nga maire Ami Sarr xam nga ak waa dëkk bi yëpp suma mag yi tamit ñoom abo xam nga ñoom Ibrahima Diamé dansé sama mag ñoom Baamu Sarr Papa Gaye ak tamit suñu association bi nga xam daa sosu fii quoi ay jeunes la yoo xamante ne ni dañ ñoo taxawuñu pour ñu jàppale ay jeunes yoo xam ne ñun defaluñu leen dara ñu leen defuñu leen tous ñu volonté xam di jël nuyoo bi di ko ci loxo ado xam ak Assane Balla Gaye quoi ak sumay kët kët Aliou Mama Sow Souleymane Diaw Mass Box man daal kontaan naa trop surtout maanaam waa dëkk bi dëkk bi yëpp sant naa leen. yaraax yëpp ñu ñëw ak ñu ñëwul sant naa leen bu baax a baax. gis naa ni ma taxaw ñoom Serigne Sène ñëpp jàpp nañ ci Tafa Diaw suma gars yi nga xam ne de ba léegi ñu ngi si jàpp quoi. ku ma limul rek dama juum quoi mais daal kontaan naa si dëkk bi di wax ne daal incha allah la kat jëli ko. indi ko incha allah du ñu sax mbokk soosee nag maa ngi mën di ko béyal la ngal jaay la al dima jikandoo ala doa min keñe ngaa jëlee alduwal lafaña dampinkol ɓeel mandinagini man tubakoto ñombato bani bamba ko alduwa kenne foga fittalaw sodo ak sama mbokku taalibe yi ñu nekk ci weeru màggalu sëñ Fallu xam nga ñaan yàlla ñu dem si ñu ñëwaat si jàmm ak poroxaan bi romb ko ak tijaan yi laayaan yi xam nga njaasaan ñëpp bëgg nañ ci